boobu nag dafay euh, poursuivre euh, euh, si altine bi pour observer benn grève générale bu vingt quatre heures non renouvelable grève bi nag képp koo xam ne yaa ngi liggéey secteur primaire nekk au niveau national di nga ko observer gannaaw bu ñu gisee état. andiwul euh, ba léegi benn saafara pour euh, tontu euh, suñu jafe-jafe yi nga xam ne teg nañ ko sur la table te ko dund au niveau central comme déconcentré euh, jafe-jafe yi nag au niveau central comme précisément à Diamniadio am nañu problème d'accès bi nga xam ne euh, dafa lié ak transport problème de restauration problème euh, d'internet ak problème climatisation au niveau donc déconcentré ñoom ñoo gën a nekkati si ay jafe-jafe yu taratar soo xoolee seen bâtiment yu nekk dafa nekk en délabrement nga xam ne mun na daanu à tout moment am na ñoo xam ne seen bureau ñoom la ñuy servir euh, dortoir ñeneen ñi même dañuy ériger si suufu garab yi si yenn localité yi